mu lañ effectivement base bi or comme ko parce que je pense que je n'en ai parlé comme ni euh, esthétique tout le temps de fait évoluer ba tout le temps da ngay côté cosmétologie tout le temps xale yi ñu ngi ba yi quels sont les produits yi nga un bon euh, effet sur li nga xamante ne moom moo suñu peau on avait parlé du diamant on avait parlé de li nga xamante ne euh, moom moo hein, bave de d'escargot on en parle tout le temps mais on a trouvé trouvé qu'en cosmétologie ñi ngi utiliser bu baax li nga xamante ne poudre d'or wala ces particules d'or yoo xamante euh, d'après des recherches et des investigations ils ont trouvé que dafay booster bu baax li nga xamante ne moom production ou euh, collagène te ku xam collagène dafa nekk euh, Ben manam lu am solo loo xamante ci yaramu nit ki la personne elle en produit sur ce sac. parfois tu trouves des gélules yoo xamante c'est à base de collagène parce que fait lutter contre le vieillissement de la peau wala lépp loo xamante ne dafay gaaw a màggetat jigéen ba taxna tu vois que maintenant en cosmétologie les gens ils ont fait pareil ak li nga xamante mom modi ces poudres d'or là légui nak di nga trouver euh, plusieurs yeuf yo xamante dang koy gis comme par exemple à l'antenne li ngeen di gis ni c'est des patchs d'or yo xamante dang koy jël colleté ko euh, ci kanam bi et ça te sert de masque parce que ça régénère la peau ko xol li nga xamante mom modi ngalam ça ne s'oxyde jamais musulo jënd bijou ngalam bo xamante ne da ngay dem des années durant gis ko mu xuur gis ko mu changer couleur wala lenen mm. ah, donc ça fait le même effet ci li nga xamante ne euh, moom moo nit ki booy fàttaliku ci démb sax comme Cléopâtre c'est vraiment quelque chose qu'elle utilisait ak li ñuy wax li nga xamante ne moom le lait d'ânesse léegi nag nit yi de boo koy on voit que les gens ont beaucoup évolué ci li nga xamante ne moom moo esthétique ak li di euh, cosmétologie donc nag existé na en plusieurs façons comme j'avais dit euh, li nga xamante ne moom moo vous avez vu mais là li ngeen gis ni c'est vraiment bi gel bi diko appliquer ci kanam bobu nak mom modi les crèmes wala li nga xamante mom modi moo di aussi euh, euh, les masques yi ñu utiliser donc bo gisee ni on va faire le test euh, rapidement sur loxo bi nga xamante mom modi loxo wu loxowu ki kii di coro par contre juste un conseil bo xamante c'est très important bijou je vais prendre le gommage alors quand on a des produits d'esthétique yo xamante ni nii la ñu def ko ci peau il faut toujours savoir que sen loxo yi il faut éviter ñu diko ko ci biir parce que particules yi nek ci biir bu fekkee da ngay coy une main bo xamantene elle est pas propre ou elle est infectée mun na yàq li nga xamantene mom modi ce produit bi donc l'idée, c'est loolu moy indi produit yi ngay jékki-jékki gis len ñu marron mu marron changer couleur c'est parce que dang koy utiliser ak sa loxo te comme niñ koy waxee loxo tout le temps fay am ay xeetu microbe yo xamantene da ci né donc il faut toujours avoir li nga xamantene mom modi spatule de préférence na nek plastique wala en bois donc sur ce ci ngay jël appliquer touti li ma utiliser ni nak c'est un gommage couleur bi ngeen di gis nii couleur or parce que poudre donc beaucoup de on va voir le avant et le après Beaucoup appliqué euh, parce que si on prend la main comme les gars mon ne modèle la main et le visage c'est pratiquement la même chose sur ce euh, donc tout le temps des mouvements circulaires donc da avant et après.

mais man gome naa matu 5 minutes mais dafa am différence entre fi ma def ak fi ma def. voilà effectivement parce que est-ce que lan ngay déjà non seulement. moo ëpp éclat bi kii nee sa loxo bi jot naa xees entre li ko gomé ak Alaaji Malick moo imam na arrêté tout donc da ngay xol comment ça brille c'est parce que particule d'or yooyu ngay gis Mom nak mom moy dugg ci biir yaram bi def ci effet bi nga xamante mom modi effet de brillance boobu ak anti bi nga xamante mom modi anti vieillissement maintenant ils l'ont même pris diko ko dugal ci li nga xamante mom modi ces euh, soins là à base de café parce que mos len leen wax euh, li nga xamante mom modi poudre de café il y a pas meilleur bo len déggee poudre de café comme par exemple li nga xamante mom modi café Touba bob tout le temps y a des poudres yo xamante buñ ko sané parce que fay joxé ay effets hmm. amna na ñenn ñoo xamante dañu am cellulite nous en côté esthétique dañu nane c'est des peaux d'orange bu fekkee da nga nane sa café Touba ba paré wala nga jël sa café moulu sax bu la nexé bo ci paré li nga xamante mom mo moo ñuul mom ngeen gis ni do ko sané tu peux le prendre tu l'utilises maintenant ce que tu veux pour ne pas agresser la peau nga ajouté ci huile huile essentielle donc ce qui veut dire que toi même tu peux le concocter avec toi euh, pour tu peux le concocter yow aussi sa jëmmu bon, mooy poudre café que ce soit du café moulu wala leneen les li sans tu sais que c'est du café moulu voilà Sénégal so ci mm-hmm. euh, poudre d'or avec 2500 avec 5000 est-ce qu'avec avec poudre d'or que ce mm-hmm. soit du 10 wala du 21 mën nga si mm-hmm. concocter sa gommage concocter, tu prends juste quelques gouttes, nga def li nga xamante ne moom moo comme par exemple ce masque tu te mets un peu d'huile fekk nga def ce gommage boo xamante ne c'est avec de l'huile et du sucre boo paree nga jël li nga xamante ne modi moo di euh, poudre d'or boobu ak sa tuuti huile tu appliques sur ton visage et tu laisses sécher donc boo ko dindee yow sax bopp sax di nga gis effet bi nga xamante ne moom lay def donc euh, moom moo génn ci wàllu esthétique moo on a voulu partager ñu bare nag bu ñu déggee or dinañ la ne waaye yow yi xaw na cher dëgg la parce que nag ko xam ngalam ngalam xam ne baax na waaye effet bu muy def ci sa yaram moo baax donc tey euh, moom nañ leen indiloon donc y oui c' est la jamono dox moo tax ñu naan la nañ la defal or bi sa kanam ngay bañ. non non jamono dox na. ah oui moo tax na jamono évolué na nag sant leen yàlla. bu ñu demee ba ngeen ni fompoo or. <laughs> dig lañ ma bindee. ah gommage jaamaan ngay lijjanti. man kenn du ma gommé. ah vous ah. voulez que je parle. Ah. ñaar lañu. vous voulez que je revienne dessus. que tu reviennes. dinañ la gommé ma man big lañ ma bindee kenn ko. ken du la gomme big lañ la bindee. Eh, artiste la <laughs> artiste est-ce que vous voulez que je revienne dessus. dañ lay gomme dëggantaan yaay. c'est bon <laughs> tu veux que je revienne dessus. dessus sur quoi. Hmm. dama ci sa anniversaire yi te voilà en tout cas la phrase fétiche sinon je risque de revenir dessus. aimez-vous et votre beauté apparaîtra. <laughs> merci beaucoup Madame. namoon nañu prochaine fois may ma luñuy ñuy crayon bi ni ci c'est très simple tu prends un coton-tige tu trempes dans de l'huile pour nettoyer parce que le crayon se dessine à la l'intérieur de l'œil dañ koy wax même beau démaquillé woo beau dindi wu. des la c'est juste ça un crayon euh, je sais pas un coton-tige. nga def ko non non non un coton-tige tu mets de l'huile huile végétale tu ouvres tu nettoies mu dindi le lepp lo xamante mom modi moo tâche bu merci Mado ci euh, astuce beauté yi ñun dañ koy soxla donc euh, ñu jàll sans plus tarder chez anniversaire yi poté et de